Aji Ahmed Aidara bismillah otage ca Casamance ga bàyyi nañ leen alhamdulilah termine yéene kay ne César Atoute Badiate day ah na bàyyi na juróom-ñeenti doomu aadama ñi nga xam ne kon moom la tegoon loxo ci kanamu nag ay kilifa waaye tamit kilifa yi Guinée Bissau yee ba ci sax ay kilifa moom ku moom ci créole mooy jàppal ma jàpp mais dans la main njiital rébellion yee daal dinay sàkku nag maanaam ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréelu fippu yi nekk diwaanu Casamance goo gee di waa nekk kon ci kaso Sénégal César Atoute Badiate bëgg waaye kon yamu ca ndaxte njiital rebelle daal la mu xam le mooy Casamance sonn nañu kon ci wàllum xiif Casamance sonn nañu kon ci lu jëm ci wàllu wér gi ak yeneen ak yeneen le soleil yéene kaay ne waa MFDC tey di kuréelu fippi nekk ca Casamance googee yeewi nañu bàyyi nañu juróom-ñeenti doomu ñi nga xam ne dañ doon sulli kon ay ndel di ay démineur ñooñee nga xam ne nag maanaam yeewi nañ leen jàpp leen ne tey ak di xuy xuy xamañ xamañ kon di jeex te moo ni waa Sénégal day ñoo fi diggee woon lu yàggul dara ci ëttu tasu xabaar yi ci presse waaw xam le carrément ne gis nga weeru koor gi zéro coupure courant du coupé kon ci weeru koor gi moo ni courant boobee di coupé waaw ma nga ca ba léegi ni la di am na ci ay quartier yoo xam ni kon askan wa fi mu nekk nii mer nañu kon ba futtu waaw waaw gis nga askan wa nga xam ne ñoo yeewoo ca cité Air France ne ca Ouest huit gis courant ñenn ñi ne xam le nañu ne seen dund gi la lekk sax dañ koy dem kon ba di ko tuur ca mbalit ma ndax day nëb day nëb kay ndax wàllum courant bi di ko pes subaa ngoon guddeeg bëccëg di xuy xuy xama xama jamono joo xam ne nag maanaam ñu ngi waxtaanee wàllum courant boobu inondation yi libération yéene kay ne ministre yu ñu dénk lépp jëm ci wàllum inondation yoo ma nga woon ca Kaolack Xaadim Jóob daal la mu xam le mooy askan day la mu xamle woon rek mooy ñii seen wax ji daal dajuwul nguur gi incohérence moo am kon ca wax maire Dagana barki dee mboo njaay la fi xam le am na ci benn entreprise boo xam ne ñi ngi koy topp kon ci coowal plan jaxaay gii te moo ni day gis nga chantier bees yu Macky Sall yi dëkkuwaay ndimbal njaboot di logement sociaux yi waaw jox nañ ko ca de marti Sall jox nañ ko ca te nguur gu bees gee ko ko jox libération nag moom nee na ñoom daal nekkoon nañ di lëmbat wax ban la waaye tamit kan moo ko moom te na ban mooy société boobee ak kan séy la la lingeer bu Galaay Njaay mag wala rek ci Alingu Njaay frère ministre énergie la te Galaay Njaay moomee barki dee moo Njaay la ko doyen des juges kon woolu Mao Sémou Diouf di ko déglu kon ci wàllum plan ji xaay yéeni kaay gi ne waaw benn question kay lañ war laaj rek ci junni ci ay question yoo xam ne kon war nañ ko laaj ci dossier plan ji xaay googe nan la ab société woo xam ne kon xel mu ñaaw tey na ta moom soupçonné ko ko war a mën tribune yéene kaay ne man daal fa may woo nguur ga daal mooy waxtaan rek di wàllum jalo defu mën a calcul politique ragaluma dara nëbbuma dara la ma bëgg daal mooy jàmm kon am ci réew mi réew mi bu ñu sukkandikoo ci Omar Faye ci tribune yéene kaay ci dëj la ñu ne de marte itaali dëj la ñu ne dëju xaalis le pays vit un deuil financier njiital leeral askan wi ne jafe-jafe ci wàllum koom-koom gi nga xam ne kon daa dëju ci Sénégal rek bañ na du fi jóge moom la ñu nimmiku sénégalais xaalis la ñuy fay ko weer wu dee dañuy ragal weer wi dee laa la wax parce la tegu seen bopp ci boppam moo diis te lii lépp dara waralu ko lu dul ñàkk gis-gis rek bu président Macky Sall ba pare président Macky Sall mi ay lobby étranger waa bitim réew ko wër ñooñee ñoo jël kon seenuk loxo te ko ci suñu alal ji ñuy dal leeral askan wi ne xoolal ma privé sénégalais gañee duñ benn marché laa lay wax nii ci jumtukaay yi nga xam ne kon gouvernement bi mi boobee ay turki lañ ko jox ay turki waa turki jël privé teg leen fee waaye te ngeen ji ci gi ne chantier yu bees yu Macky Sall waruloon nekk lenn lu dul wàllum inondation yi wàllum courant bi engrais bi kese waaye warul nekk nekk fi rek di tëj kon ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon kaso nguur mënul di dundee kese impôt puisque rek impôt rek la ko tijjee yéene kaay ne président day effacé na juróom-ñaari milliards impôt taskatu xabaar ya waaw yéene kay jàppale ne ne présidentielle patron de presse yi de jox nañ leen sukkaru koor président ni ki démb kon la dalal patron de presse ya moom président Macky Sall ci direct info ne man aw ma satan ngir di tëj kon ay groupe de presse aw ma tax te jamono joo a ma jamal jaañ patron de presse na ja bokk de publication Le Quotidien Mamadou Biaye allahu akbar bokk na ca Soro Diop dàq nañu ko Aminata Mamadou Diop dàq na ko Ali Fall Simpix Le Quotidien journaliste waaw ne dàq bi nga xam ne kon président journaliste yi tegu ko fenn benn ñaar li mu wax ba mu dàq leen wàllum koom-koom loolu di wax ju dëju teguwul libération yéene kay ne leeral point ne day dal nañ caa ah waaw waa kër daam jee yoo yee exclusivité lañ am fexe nañ daal ba wax loo Babacar Ndiaye góor jigéen la ilaha illallah Babacar Ndiaye daal wax na kon mbiru Baara Gaye wax na passeport diplomatique sénégalais bii wax na digganteem ak ñi nga xam ne daal da daan génn ak ñoom ay partenaire am fii ci Dakar la ilaha illallah wax na it ne doon na génn benn waajoo xam ne ko siiw la sëyam sax tas na te la tax kon ba sëy waajoo jee dee mooy jabaram moo dem kon ba xam ne waa ji kat day génn ak ay góor maanaam day bëgganteeg ay góor yéene kaay gi ne subhaanallah subhaanallah la ilaha illallah <laughs> safrullah